ok yéen ñi xam ne yéen yu topp suñu chaîne bi di Wade TV piir ñoo ngi dellu si ak yéen ci vidéo yi am doole yi xam ni moom lañ leen di indil lépp du ay njariñ yoo xamante ni nit ki mën na di ko jëfandikoo si ak dundam sa lépp nag ñoo ngi ko jëlee si alxuraan tey nag ñu leen di ñaan tamit yéen ñi xam ne yéen soo ko yam ci suñu site bi di Wade TV Pire ngeen di abonné di partager vidéo yi ca di ko emee tey de ñoo ngi leen indil secret boo xamante ni mi ngi dox si wërsëg yow mi xam ne da ngay xëy di wut bëgg am am yomb la lool muy xaalis ñun ñëpp moom la ñuy xëy di wuti bu boobaa yaa ngi jël baat bi ñuy wax fii jii di haa moom ngay jël mooy baat bi ñu leen di wan ci écran bi moom ngay bind soixante-dix fois soo ko bindee soixante-dix fois nga wut ndoxum koko nga jàmbee ko ko soo paree nga def ko ci benn butéel waaye nag doo ko booleeg beneen ndox bu dul ndoxu koko rek heure boo xëyee incha allahu nga raxasi sa loxo sunu borom de dina la yombalal xaalis lool muy nag ubbikaay bu am doole lool ca bari njariñ nag lool ba tey mbokk mi su fekkati ni dangaa bëgg kaaraange nag ndax wërsëg ak kaaraangekat ñooy ànd ba tey yaa ngi ñëw ci saar bi ñuy wax tabatiya daal boo ñëwee nga ñëw jël baat bi xam ni mooy fii jii di naka nga koy liggéey da nga koy bind junni yoon nga koy bind boo ko bindee junni yoon nga wut juróom-ñaari puso yoo xamante ni musta ñaw dara nga damm cati puso yi lemaale ko ci kayit gi ëw ko ndomba def ko benn gaw incha allahu kaaraange la goo xamante ni am na doole lool sa tamit nit du la mën a fexeel ba mën a la dara mbokk yi yéen ñi xam ne yéen ñu topp suñu site bi di Wade TV Prix dañ leen di indil ay njëriñ yu am doole lool ñu leen di wax ni képp koo xamante nii bëgg nga si jaaro yi xam ni moom la ñuy liggéey tamit mën ngaa jaar suñu numéro yi bu fekkee ni dangaa bëgg a listixaar tamit mën ngaa jaar suñu numéro yi 77 541 02 70 76 bi tamit 618 20 de boobu mooy Tigo bi mbokk yi ñu leen di jëfal di leen ñaan dig daje ba beneen yoon